doxalin gu yees ci li nga xam ne moo di formation enseignement technique ak professionnel fii ci biir Sénégal ñi nga xam ne nag ñoo ŋànk googu secteur ne fi mu nekk doxalin gu yees tàq lañ ci fas yéene indi ndax kat ña fay génne am ci lu ñu jàpp moo gën génn gàddu say diplôme doo xam foo dugg ñu ne nag lii nag li ko waral du lenn politique gu bon goo xam ni dañ ko fay amal ci biir réew mi Oumar Dia loolu la dénk suñu naataango Badara Diop. jafe-jafe enseignement technique bëri na te soo xoolee maanaam jafe yi nga xam ni day revenir chaque année. que jafe-jafe yu ñu ci mën a maanaam ci ëpp examen yi et concours yi nu ñu koy organiser dafa louche dafa euh, mel ni maanaam dafa am ñenn ñi nga xam ne rek ñoo ci teg seen loxo parce que des collègues se plaignent toujours que dañ leen di demander ñu proposer sujet suñu joxe sujet bi que ga duñ leen sax convoqué ci examen yooyu ku loolu jaaduwul que en même temps que dañuy am toujours de retards de salaire ci retard de salaire yooyu si année bii bu ñu nekk nii si remaniement calendrier euh, scolaire bi am na benn loi bi nga xam ni day permettre suñu collègues vacataires yi di percevoir mois de juillet bi que enseignement général bi loolu ñoom percevoir nañ ko ba fàtte alors que de l' enseignement technique ba léegi ñooñu jotaguñ ci mois boobu si euh, côté CNQP euh, dañoo constaté que CNQP que école publique la bi nga xam ne dafa war a tàggat ndaw ñi ci enseignement technique et de la formation professionnelle ci loolu état bi da ciy dugal loxam maanaam dañuy jox lu ñu woowee subvention leneen lii li nga xamante ni dafa war a euh, tax école bi di dox ñun ñoo ko war a liggéey ñoo ko war a bay te seetlu nañ ni direction bu ñu am dafa amul ambition pour maanaam formation boobu dox suñu xoolee rek. atum 2010 bi ak 2011 bi am na benn augmentation bi nga xamante ni 33 million la ci salaire administration bi mooy tax yi nga xamante ni moom moo ñu waroon li nga xam ne tàggat ndaw ñi duñ ko mën a def parce que suñu xoolee suñu atelier yi barre de craie sax doo ko fa am pour nga mën a def ci liggéey correctement loolu